maaleykum suñu mbokk internet yi yéen ñi di seetaan Fekhe TV ñu ngi leen di jaajëfal di leen si suñu plateau Fekhe TV fas yéene moom maanaam si milieu showbiz milieu showbiz nag la fa nekk bëri na la fa laxasu bëri na te tamit li fa nëbbatu tamit bëri na waaye moom nag mu nekk si milieu showbiz am ci ay jàngat am ci li nga xamante ne seetlu na ko si tamit ñu fas yéene waxtaan ak moom loolu loolu parce que bëri na ñi nga xamante ne tey jii ne ñu ngi si showbiz waaye boo leen laajee dafa am lu bëri li nga xam ne la fa làqatu ñoom nag fas yéene wuñ ko làqarti kii nag moom mooy Babacar moom artiste la comédien la moom tamit day def simb tey nag ñu fas yéene waxtaan ak moom pour mu dévoiler li nga xamante ne nii maanaam li nekk si milieu showbiz li nga xamante ni ñu bëri duñ ko wax moom nag mu fas yéene ko wax mbokk internet Pexxe TV ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk si àdduna bi xamal leen showbiz bi nu muy demee Babacar laataa loolu dañ lay bàyyi nga nuyu mbokk internet Pexxe TV yëpp. waaw asalaamaaleykum Jiri maa ngi lay nuyu ak waa Pexxe TV du nuyu mbokk internet yëpp ah, di leen jaajëfal. di leen masaw ci mbas mi dugg ci réew mi di sant suma sëriñ bu baax sëriñ Baara Mbacke mu sëñ Afee di euh, sant suma waajur sama yaay sama papa di gërëm sama soxna bu baax a baax a baax a baax muy ñaaña gay ah di sant bi sama benn sëriñ bu naan Cheikh Ablaye Fall borom Thiès di sant sama papa bu naan père papa Ndiaye bu Joal ñooñu danoo nekk ñoo xamante ni dan maa jàppale di sant sama benn jigéen nag boo xamante ni. mi ngi fii fiñ mbit di jigéen bu mën góor di jigéen boo xamante ni dañ ko war a médiatiser àdduna bépp xam ko ñëpp dégg ko ngir lii dama bëgg nga génne ko muy xujja caam mu jigéen bu mën góor nekk biir géejawaay di def loo xam góor yi nekk biir géejawaay di ay notable sax defuñu ko di jàppale xale yi jigéen yi di leen financer sans pour autant mu teg ci intérêt di leen jàppale pour ñu liggéey di leen ba pare nekk ci bonne voie li tubaab naan un bon éducateur doit donner le bon exemple <laughs> Khoudia Thiam di ko di def loolu donc ku mel ni Khoudia Thiam dañ ko war a wane mais Sénégal dañuy wane ñoo xamante ni amul lu ñun njariñ dañuy valoriser lu amul njariñ bàyyi la am njariñ ci suuf ñu mel ni ay Khoudia Thiam ak keneen ak keneen musuma am ay junni barke sëñ Fallou man taal bi sëñ Touba laa ragal ma dara sëñ Touba may jox keneen joxuma dégg nga ma waaw may gërëm ñëpp nag di sant ñëpp di ko ñaanal si daral bi nga ma fekk nii. moom laay jaayal ay xar. <laughs> man man xam nga Baye yére yu xotteeg yooyu yëpp garaaw dañuy dóor waar. waaw ay Baye Fall la waaw noonu la demee waaw Babacar bu ko defee bon dañ fekk si waar bi certes comme ni nga ko waxee léegi léegi nii waaye li njëkk suñu laaj yow nga xam ne yaa ngi si milieu showbiz bi dafa am ay xale jigéen yi nga xamante ni dañoo nekk maanaam si milieu showbiz bi dañuy gis ne xale yi même buñ jàngul formation bi sax maanaam dañuy dugg si image yi dem si média yi ci mel ni ay télé yu mag yi wala chaîne YouTube yu mag yi affaire yu mbir moom noonu naka lay demee yow naka lay demee ak ñoom naka la ñuy def ba foofu noonu en tant que nekk si milieu bi yow naka compliqué waa Giri li nga ma laaj ça des années maa ngi bëgg ku ma ko laaj dama ko denc mar li naan mbër mer la fanaanoo mer mer mer laa fanaanoo comprendre nga mer laa fanaanoo xam nga lu tax mooy ñun milieu showbiz bi ñu nekk dañ ko bëgg a def jaayukaay dégg nga wax bi il faut mettre la place qu'il faut aux hommes qu'il faut xale yi jigéen ñi dañuy tëlli tëlli tëlli ba xamuñu fu ñu jëm ñu wiiree ci milieu théâtre pour jaayu ci wala ci milieu leneen pour jaay théâtre moo ci gën a fréquent yaa ngi dégg wax di li tax ñu rey suñu seen cinéma bi lu tax ñu rey ko suñu suñu cinéma euh, euh, euh, sénégalais lu tax mu dee mais boo seetaan ay Nollywood dañ fay teg théâtre yëpp ba mu des Sénégal lu tax parce que sénégalais yi li ñuy def gëmuñu ko dangay gis ku ñëw tey gis benn giri muy muy muy produire nopp ko fexe ba nu génn ñoom ñaar mu dugal ko ci théâtre bi ñu defante lu leen neex pour euh, jaay image am mu génn après am na image dem na pour léegi mën a lijjanti boppam mën a am ay far mën a am ay mbaraan mën a am ay ainsi de suite or que am voilà or que am na koo xamante ni moom aar lay dundal moom il vit dans le monde de nga moom aar lay dundal léegi kooku nekkoon fi di galère bàyyi lépp ñu naan ko góor jigéen naan ko bëggoo dara naan ko dangaa ñàkk jom naan ko nangam mu topp aar di ko di ko jàng di ko jàng nga jël keneen koo xamante ni leneen la ñëw teg ko ci par défaut ñëw teg ko ci kooku réussir dem léegi ki nekkoon ci suuf di ko jàng. est-ce que yaa ngi développé Sénégal. ngay rey bi. yaa ngi rey aar bi secteur boobu comprendre nga Sénégal yaa ma neex a fi ne yaa ma neex nit ñi dëggumu ay dañuy organiser nit ay fen sax ba mu am xaalis damay toog léeg-léeg di seetaan tele dégg nit ku toog ci tele bi di waat fekk kooku ñuy waxal barke yonent yàlla Muhammad loolu ñu koy waxal mënu ko waaye ay bis boo duggee ci bàmmeel di nga xam ne lépp dëgg la dëgg rek ay dëgg dégg nga ma ku nekk li mu yellool mën ko moom ko nan ko ko jox mu réussir. ci biir loolu dafa am lu may laaj dafa am ay journaliste ay présentateurs yi nga xamante ni maanaam ñoom dañuy ñëw si li nga xamante mooy maanaam milieu artistique bi bàyyi seen maanaam bay seen métier ñëw di ko projet. mais loolu laay wax loolu laay wax te am na ñoo xamante ni tey tey dama lay wax ku mel ne café avec c'est bien boo café café avec nice na scénario bi nice na lépp nice na mais personnage yi nice wul tey ku mel ne Boubacar Diallo. am na lu mu war a am lépp ci àddunaam macha allah yàlla na ko yàlla yokk te est-ce que moom mu amoon loolu xool ay jeunes yu nekk ci quartier am doon dund ci aar amuñu dara mu produire leen loolu dem ñu am ci liñ ci war a am moom mu am ci li mu woon mu fekk ay mannequin ak moom journal en tant que euh, journal euh, présentateur animateur am li muy am mu génn image am amalatuñu sens am na ñu soxla image pour réussir pour dundal seen àdduna. kon da li mu def noon am na xaalisam mi ngi financé mi ngi di am na loolu moog Cheikh Yérim Seck nangam nangam se bien beau mais nanu jël artistes yi jël artistes yi. kon maanaam ñu jël mérité wu non fekk géej di wat ndox bubsu image da koo jaaxal tur da koo jaaxal génn da koo jaaxal am déet bubsu loolu jaaxalu bubsu tur jaaxalu ko image jaaxalu ko leneen jaaxalu ko. dégg nga ma bu baax loolu mu def moom jour euh, euh, kii la nu mu tudd présentateur la animateur la ay man ken la yor ne man man doo ma jël may pour pourquoi ñoom ñu bëgg a bàyyi seen yoon bëgg dugg ci ci ci ci milieu artistes yi di rey artistes yi te Sénégal dañuy nës nësal boo waxee dañ naan booy bi dafa con te wax ko dëgg bu ne da ngaa wax ko dëgg bu ne da ngaa deret da ngaa waaw waaw ngir nga. y a pas de sous-métier ne serait-ce que nit ki yow yaay gëm sa bopp man su la waxee damay simb wala damay fecc doo ko gëm man mosuma tax a jigéen ñu wax ma góor jigéen parce que Baay Faal laa est-ce que gënul dem di agressé ji wala di sàcc wala di tox yàmba wala di jaay yàmba te bari nañu fi nekk di jaay yàmba ay boo yu bari dof ñu dof loolu leen bari nañu fi nekk di tox yàmba toog ci koñ yi nit ñu war leen a boole te boolewuñu leen yow lu mu dee dee yaa nga jug dem di répété ji di wuti loo am ñaata booy sénégalais ñoo nekk kaaw ba yor fi ay kër di dund ci aar fecc ak tëgg ak leneen ak leneen ñaata booy ñoo jaar ci Pa Moussa réussir ñaata booy ñoo jaar ci ñeneen ak ñeneen man mii am na ay nit yoo xam formé naa la ñu tukki man fecc ma yóbbu ma tukki mu représenté Sénégal Chine Pékin seen jouru indépendance seen fête mu représenté Sénégal 2009. le 24 avril 2009 jour vendredi. mais góor jigéen yooyu ñuy wax. maa ngi ñëw xam nga Oudé nu mu la gisee rek la lay ëwalee ñun sunu aar bi léegi boo bëggul góor jigéen yi sax doo doo ci réussir. boo jigéen yi doo ci réussir boo melee ni man. Ah. après da nga ñëw retrouvé wu di jaay xarak di def affaire yooyu noonu wala nga dem wuti métier dem defi leneen donte aar métier la comme yeneen métier yëpp nag man du ma tox du ma naan bëttuma samay nopp du ma moy du ma fen du nuyu góor jigéen du ma ànd ak góor jigéen. est yu bari bari na fecckat yu ñu mbubboo fecc ay góor jigéen lañ. est xam nga yu bari. <laughs> yu bari ay xam yu bari man la yu bari. Hmm? barke Cheikh a Fall Lamp te dama leen koy wax dañuy jàkkaarloo nga muy nuyu ma leen teel sa loxo góor jigéen nga. nan wax nag après lu leen neex après dañuy dugg saaga ma ndey wax déranger wu ma parce que dëgg mooy dëgg te saaga ndey yooyu ñu may saaga ndey danoo waroon cee déglu sama wax bi jéem a changé ndax rien n'est trop ndax gis nga ku ci dund góor jigéen wala ku ci dund leneen leneen ba dugg ci biir bàmmeel ñaari fanu bàmmeel di nga xam ni yàlla li mu wax du deñ ngir man aar bi ma nekk sax nattu la bu ma sunu borom teg waaye barke Cheikh Rafal nu ma ko bàyyee laay wër ndax man bokk ma ci lu tax nga wax loolu. xam tax bokk ma ci li ci laxasu lépp showbiz li bisu damay déglu bisu ngóone moo koy wax naan showbiz amul yàlla amul yoneen te pourtant c'est vrai da ngay toogal nit showbiz mu wax billaahi wallaahi barke Seydina Muhammad nga génn ndeke day fen du dëgg barke sëñ Fall te mooy li gëj suñu Seydina Muhammad bi mu ko laajee dañuy jullit dina moy mu ni waaw jullit dina naan sàngam jullit dina def mu ni waaw jullit dina fen mu ni déedéet temps yi passé ñu ngi dégg ci réseaux sociaux yi Ouzin Keita ak Tange am problème Ouzin Keita naan Tange góor jigéen la en ah Tange na Tange dem porté ko plainte coow boobu noonu Ouzin Keita showbiz la nekk Tange moo géré affaire yow loolu loolu ban éclat. maa ngi koy dégg mais ñoom ñaar xam nga Papa ci Thio ngi fi euh, Bouba Ndour a ngi fi lu tax ñooñu wax ñu leen ay góor jigéen la kenn waxu leen ko de. ñoom ñaar lu tax ñu xool leen sepp leen ci biir nit ñi wax leen ay góor jigéen nañ xoolaat seen bopp leeru ma nag gisuma ko fekkewu ma ko mais barke xaadimu rasool bis bu ma ko fekkee woon man gis leen ñu nekk góor jigéen ma taxaw ne diw góor jigéen la dara ci bëgg a ci ndax mënuñu ma ëpp ñu ma doole. sepp bi leen ci seppi. sepp bi leen ci seppi nanu xoolaat ndax góor yàlla bu doxee ban ni ko góor jigéen na xoolaat boppam dégg nga mu baax mosuma fekke xaw ma leen Ouzin Keita xam naa ko. xam naa ko ndax sama soxna seen kër dafa daan nekk xam naa ko nii nii nii nii nii séqunu dara man ak moom ça sax séqunu ko gis nga dama lay wax benn affaire giri daam benn artiste bu nekk Thiès boo xamante ni dama ko gëm dama ko fonk dama ko bëgg muy daam seen xam nga lu tax lu ne lan koy wax même moom yàlla lay doxal li mu war a wax lay wax leneen li ci des intéressé wu ko est-ce que dégg nga bu baax daam seen mayu ma 1000 francs mayu ma dara léeg-léeg sax lañuy wax nii léeg-léeg duñu wax benn vidéo bu ma fa defoon di wax ci góor jigéen la ma la ma téléphone di ma remercier di wax yaa ngi may dégg mais dama ni moom daam seen Baay Faal la giri nekkal ci li nga nekk li la sunu borom nattoo nga di ko def def ko soo paree nga dellu sa kër yor beneen image ndax mag day am te doomu jullit nga te dangay ngay dee dégg nga wax bi image yaa ngi fii du fay lu tax man kenn du ma wax góor jigéen lu tax man suma ma la romb ñun la kii artiste la sax doo ko gëm maa ngi yor sama njaboot maa ngi yor samay doom maa ngi yor samay jur dëggal leen sama papa gën a naqari deret lu tax mu bàyyi ma ci ma nekk ci aar xam na ni sama doom mooy loolu ku ne laa mën a toogal yow xam nga ma. dégg nga wax bi soo ma fekkul ci milieu bi may dundu aar doo xam ne artiste la te du n'importe où laay dugg ndax yàlla mooy maye yaakaaruma kenn ku yor loo may jox tee ko fan yi passé léegi-léegi sax yaa ngi wax nga ne am na ñoo xamante ne leen tëggal ay affaire defal leen ay affaire di leen euh, tëggal euh, di leen woyal ci ay fen pour ñu mën a tekki waaw ci mel Abdoulaye Abdou Diop Xaas euh, Abdoulaye Diop Xaas du mooy sëriñ boobu noonu mm. yaakaar naa ne amoon ngeen ay lien wala xam nga ko tey jii nii bon am na si bëri yoo xam ne neen da da koy dund da koy def am na ñu koy ŋàññi mais am na tam ñu koy seedal li muy wax dëgg la xam-xam la koy teg loolu ban jàngat tey Giri Abdoulaye Diop Xaas xaw ma ko amuñu benn lien xaw ma ko ci tele bi laa koy gis nekk naa Gambie nag dégg ko fa Gambie nekk naa fa 2008 damaa jóge Gambie ñëw ñu doon maa woowee Gambie ma ñëw jóge fii euh, fin 2008 bi 2009 je crois euh, yooyu daal la nekk naa fa ba 2009 yaakaar naa ma génn damaa ñëw fii rek ay un mois ma voyagé mais man Ablaye Diop Khass xaw ma ko. mayuma dara bu ma may dara bëgguma dara mais man gëw ma ko personnellement. li tax merci moom dañuy def mën naa faj lu ne lépp mën na ko faj d'accord moom la xam xamu tax gëw ma ko dañu day dimbali nit ñi te yàlla tax koy dimbali te yàlla tax man li ma dégg ñu ni day jël day def ticket vingt soo ko bëggee gaaw gis ticket cinquante mille la nga yëg ci kaw saal bi gis ko ñuy joxe ticket vingt mille mën a def deux jours duñ ko gis est-ce que day dimbale te yàlla tax am na ñu yorul dix su doon day dimbalee te yàlla tax suñ ko woowee ñoo ñu ñëw da leen di jël faj leen ba pare yëkkatiwaat li nga war jox leen ba man ngir damaa gëmul sëriñ buy médiatiser soo mënee foo ne ñu fekk la fa mais sëriñ buy toog ci télé. gars yi waxkat yi dëkk la micro waxal la. waa déggoo li ma la wax sëriñ buy toog ci tele sëriñ sëriñ buy daw sëriñ buy daw dem di topp ñu siiw ñi di leen vidéo di leen dugal ci sa ci sa chaîne YouTube di damay gis ni corrompre la. damay gis ni dama day ñëw ci ñooñu ndax ñoo ñoo am image def ci ñoom teraanga. pour ñoo ñu génn waxal diw diw diw diw nangam pour yow beneen dóor bu nekk sa ginnaaw ñëw senegal na nu bàyyi dóor waaw man loolu laa gis gëw ma ko barke sëñ Bamba gëw ma ko temps yi baax ñu ngi dégg coow euh, Lamine Samba ak ki nga xamante ni mooy euh, guy waaw yaakaar naa ne loolu am nga si benn affaire yow miy nekk si suuf bi. nekk nga tamit si milieu tamit euh, sport dégguma sax seen coow xaw ma sax lu ñu jotee. maanaam Lamine Samba ak guy yàlla xam nañu ne Lamine Samba ku muy taxawee naan ay guy bi moom tàppet la ñamewul bëri bëri la. waaw Lamine Samba xëy na moom loolu slogan am la mais su doon man slogan boobu maa ngi dégg lu bëree bari nit ñi di ko ci clash ah day xaw a offensé malgré peut-être moom jàppee ko dara mais damay dégg mu mel ni koy xaw a offensé damay dégg ñu bëri ni ko comme man nag nekkuma ci sport def man aar laa du ma ci mën a sori ndax xam nga lu tax man su fekkoon dafa dugg ci aar wax ci lu mu ci warta wax dinaa ko wax fu mu war a yem mais ci côté boobu xëy na peut-être moom ak mbër am na ñu si nekk di yàq ñan la ak ban aar bi ñu si nekk di yàq bari na. xam ne ay góor nekk góor. ñi ñi nekk góor jigéen du mbubboo aar nekk ci nan ñu bàyyi ak sunu aar gis nga nit looy def te nëbboo ko yàlla bu ci bu ko nëbb doomu aadama dégg wax bu baax. da a jaral ba mu jaral leen ñu bëgg nekk ay góor ñun sol ay ndokk di dox ci digg mbedd ñi di leen gis bu boobaa barke sëñ Fallou man ma bëgg leen xam nga lu tax damay xam li ngay def yow gëm nga ko mais bu ñu bu ñu mbubboo yaaram giri xam nga ma bëgg a bàyyi aar billaahi wallaahi wal kitaab góor jigéen ñi barke alxuraan moo tax ma bëgg a bàyyi aar. bëgg na ci leneen ndax man dafa am leneen lu nekk sama bopp. ak euh, maanaam euh, ki ngay nekkal. mooy sa soxna maanaam nga xamante ne ñoom ñooy waaw Giri yow yaa ngi may dugal ci loo xamante ni <laughs> waaw tawféex bëñ ak làmmiñ ñoo dëkk dañuy laale yaa ngi dégg euh, foo dem di fa am ñu la bëgg am ñu la bañ. surtout yoonu dëgg boo ci nekkee yoonu dëgg boo ci tegee sa tànk dina néew ñu lay fekk si yoonu dëgg boo ci tegee sa tànk dina ni doo doo am xarit doo am waaye tôt ou tard ci yow la ñuy ñëwaat da nga wax bi man keneen ku bëgg ak ku bañ ak intéressé wu ma ki ma intéressé mooy sama soxna yaa ngi dégg wax ji li ma bëgg ci moom ak fi ma jëm ak moom te yàlla sunu borom digle say digle nu nu war a àndee ak nan nan war a jaamoo suñu borom may jaamu yàlla ci moom dégg nga wax bi di jaamu yàlla ci moom a tax ma jël ko def ko soxna mënoon nekk fii di dund ak moom ak leneen te du ma ko def keneen ku bëgg ak keneen ku bañ ak keneen ku ma considéré ku ma considéré wu intéressé wu ma parce que yow la nga yor man soxlawu ma ko sunu borom moo may jox giri barke yonent yàlla Muhammad ku yor loo ma jox téye ko yàlla laa yaakaar lan ngay tëjee. damay xëy du ma yor ñaar waaw li may tëjee mooy. Euh, Sénégal nanu bàyyil ñi nekkul ci dëgg ñu leen di valorisé mel ni ñoo nekk ci dëgg dina xale yi ñiy naxe moo ëpp ñiy wax dëgg nanu jël ñi nga xamante ne ay référence lan ñu wane leen dégg ma. loolu jël ñi nga xamante ne ay référence la ñu wane leen ngiri man ku ma gis ngay référence dinaa la wax yow xam nga ne man defloo ma li yombut de ma ñëw di jàppale nit ñi yombut de man je veux aller à l'avance ci kanam laa bëgg a dem dégg nga wax bi tey giri dafa am bu may commencé dafa am ku ma la tuddal xuja caam xuja caam ñaata yoon laa ko wax dama bëgg Giri lii dama bëgg nga génne ko dama bëgg ñu wane ko dinañ ko seeti dama bëgg ngeen seeti ko dama bëgg ñu wane ko dafa jara wane xam nga lu tax day nit ku baax day nit kuy jàppale jigéen day nit ku jàppale doomu aadama day dafa nit nekk nit ko dafa nekk fiñ bi Macky Sall jàppale ko président keneen jàpp ku toog ci Macky Sall jàppale ko kenn jàppale woo ko muy dox boppam ba pare gëm boppam dégg wax bi di jàppale ay doomi aadama yu nekk film bi di fekk nit sax di am problème ci sëy mu lay jàppale ba nga taxawaat ba ba ba dootoo xalaat dara ñuy koñe nit ci dara mun la kaay taxaw fii kooku dafa jara wane mais ay fen yi ñuy organiser di nit di mën na nangam mën na nangam kooku may fa deux millions un million gis nga fen kun ci may un million boo duggee ci bàmmeel barke alxuraanu karim di nga bëgg a fay dix milliards pour ñu baal la gars yàlla mayewul lépp ku mën a faj lépp wala mën mën lépp xanaa yaa yàlla Babacar ñu ngi lay jaajëfal di la wax ne kontaan nañ trop dalal la fi nga xamante ni moom mooy ci euh, suñu plateau bi muy Pexxe TV tamit di la wax ne tamit bu fii ak ay famille parce que xam nañ ne li nga yor ak li li nga xamante moom moo nekk si lool waaye nag rek lu euh, nag bi andi si cin bi xam naa dañ lay jox dig daje yoon ah dina fi ñëwaat seet si la di la jaajëfal si nga jox waa jërëjëf ba beneen ngay wax lii nag tamit bëgg naa nga génneel ma ko lii sama gars yi damaa bëgg da nga maa fekk fii sax ma xaw a sonn mais damaa bëgg ngeen jël seen temps ñëw sama kër ñu ko nekk kenn ci man ngir dimbali ma ngir yàlla nga génne lii ndax nit ki la fekk ngay sonn nit ki la fekk yoroo dërëm nit ki la fekk kenn nawloowu la ndax Sénégal boo amul xamuñu la da ngay am valeur ñàkk ñu teg la nele te yow sa ñàkk goog sax mënoon nga leen cee jariñ mu jariñ la jël ay valeur di la ko jox muy sama benn papa sama benn sëriñ bu naan Cheikh Ablaye Fall bu Thiès billaahi wallaahi ay terrain yooyu jar ay quatorze million lay yëkkati ay kayitu terrain di ma ko may naan ma demal faj sa soxla demal nga yor sa njaboot barke alxuraan te ku la defal lu baax soo ko waxul bu lim ay noonam na la ci boole sama sëriñ sëriñ Baara Mbàkke mu sëñ Afiya yàlla na fi yàgg te wér sama soxna yàlla na ko yàlla may gudd fan sama soxna jàmbaar la dégg na lu ne kii ngay àndal amul dara fecckat bi nangam nangam mu gumba tëxlu téye dégg nga wax bi sama yaay yàlla na gudd fan sama papa sama rakk ak ñëpp ku ja càmm yàlla na am jàmm pend sugoog ñëpp waaw noonu la demee waaw noonu lay demee tawféex